waaye di ñaanal Cheikh Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoulaye Mbacke sama dugal la fanam wéral ay cëram ci barke Serigne Touba commission bi nga xam si ni nag ñoo jóge commune euh, jóg nag ànd ak euh, bàcc sunu waaju baax ji ak ak caméraman waaye ñëw fekk fi euh, chef de village boo xamee ni si ni kenn la ci mag ñi ak njubam ak mbaaxam ak yaatalam moo tax agit it doxin woo xam si ni mi ngi koy dox fii ci Belel ndaxte maa leen di jiite yomb na waaye yaa nuy jiite jikka la euh, muy Baye Baye Thierno Gaye kon mo nek ni di chef du village belal ñun ñëpp ñu bokk ci diglu ko Baye yéen bokk yi ma ngi leen di nuyu di leen balax di leen balax de di di masawu ci coono yi ngeen dox ba dik ndokit bi ngeen dikkee ni ba nga xam dañu mëna mën a matilu sunu yéene ci jëf ji nga xam Abdullah Abdoulahat mi maire bi def jëfante na ak nun non ko ñaan mu guddu fante te wér te Cheikh Abdoulahat mi ko tuddee jàppale ko ba liggéeyam dara bañ ko ci naqari yeen yi nga xam yeen yéen yéen lañ fi yebal te na ngeen ko jotaloog cant cant ak Touba lel gep sant nañu ko bo lu jiitalee nak Serigne Sidi mi nga xam ni lu am mooma yàlla na fi yàgg te wér te ba dara bañ koo doog ba mu àgg fa mu bëgg a àgg te ba koo dara yàqal te fu mu dem yóbbaale nu fa moom Serigne bi loolu la ñu yéene li nga xam ne indi nañu ko fii jóge ci commune bi maire Abdou Ka jiite ko indil nañu fi téeméeri saakoy ceeb indi nañu fi téeméeri paquet suukar indi nañu fi juróomi téeméeri litre diw ñu fas ko yéene séddale dëkk bi ba mu jeex bi ñu ko seetee koo xam ni kii boroom kër nga xam ne dangay ngay natt njël di ko jox sa jabar muy togg bind nañu saw tur da am ñaar ñu ne ñu boole leen saako wax leen paquet suukar jox leen bidon diw ba ba loolu bi ñu ko toppee ba jeex ko ba xam ne àgg na jeex na takk. ci tur yooyu noonu lanu ñu ko doxale xëy na bu ci am bu amee benn benn yu des it na bëriwul daa xel mën naa fàttu ci loo koo war a tuddoo ko waaye na xam naa ne du fi bëri li gën a bëri te fi ma foo loolu ma ko teg li war a jëm man ci man sans man ci sama kër maa ngi sama njaboot buma kenn diké ni ma aw ma te moo ku wara am la ma bayi sama bop jox ko lool lool la fas yéene mom li nak mom wax deug yàlla ni mako ko ma maa ngi koy rafetlu bu baax laat ka li mu def ñun bàjjani gox yëpp rafetlu nan ko noo koy sant bu baax di ko diko di ko ñaanal lu man ren bu déwénee yal na man lu ko upp tay nak euh, ñew gi ñew fi euh, dama ci am mbégte ci ci ñaar moy benn bi ñun dëkk bi amuñu lu mom fi len juddoo fi len màggee fi len yaro fi len defal lepp fi leen defee fi leen jàng alxuraan. kon kon donc bu lii amee. ñi yaakaar ni euh, suñu dëkk lañ koy indi dañ ci am kontante. ndax te jii bu ñu ñëwoon fekk fi leneen loo xam ne tegu ci yoon danañ am ruus danañ am gàcc. bi commission bi dëgg yàlla maa ngi leen sant ndax ñu ko ni ñu ko bëggee woon wax réunion ban teniroon ca commune noonu lañ ko defee kon boog man dama am mbégte ndax tubaab bi amul lu moom. te bu ma fexee ba ceeb bi maam ñi indi ko fi teg ko fi ci loxo yi leer ñi séddale ko ci loxo yi leer comme man dama ci bëgg kontaan ci. léegi nag ñu ñëw dëkk boo xam si ni kenn ku nekk xam na ko muy Touba Belel dëkku Cheikh Abdou Lahad Mbacké waaye di ñaaral Serigne siidi Mbacké mu Cheikh Abdou Lahad Mbacké sàmm bu guddal aw fanam ci réel ay cëram ci barke ngeen bi chef du village bi yëkkatee kaddu. fi mu waxee ak ni mu daanelee lépp di lu rafet kon sëriñ Sidi bi nga ñëwee Belel lan gis ak loo fi dégg. fu mel nii nag bu ma fi laajee dinaa sawar a wax ndax. day nit ñu ma xam. bi yalla dogale ndim euh, li ñuy joxe ci commune bi ñew fi bi mu ñewé it wax deug yalla tek nañ ko ci condition yu baax limu ci gëna amal solo nag mooy texte yi nga xamanteni ci mom lañ leen joxone yépp dañ ko remplir ci norme yu normal ndax dañ naan nit bu fekkee da ngay wan yoon ya ci wara jitu kon lolu yakana ni fi rafet na ci ndjor ndax bo xolé gendarmerie ngi ni taxaw ñepp di ci tek seen bëtt nanguwuñ fi rassemblement ñaarel ba itam ñi ngi xol commission bi ci condition yu ko wara dox fi ni bu lajoon ci sir ñom ñokoy ci sir siir ko def seen rapport duñu ci taggu ndax loolu dañ leen a décharger bàyyi leen seen liggéey comme ñom ñu ngi fi yendoog ñoom na kon suñu xel gën naa dal nuy wax ne ñun ni lañ tëralee commission yépp pass pass bi lañ am ci commission yépp té ni lañu doxé ci commission yépp amana nak yenn ay délégué de quartier yo xamné ci dëkk bi ñi ngi ci doon wax loolu dama ci taxawaat ci taxaw taxaw seetlu ndax ñi ngi ci doon wax ñi naan dañ koy sédélé par ñett kilo ñett kilo démé wut nonu loola dañ leen tax taxi yu normal jox leen ay ay ay ay ay kayit jox leen jox leen ay rosi ne leen bu ngeen yeggé sédélé leen ko ni muy norme yi ñoom ci seen biir bañ demee ba ci biir ñu xool na seen village li ñu leen jox mën nañ cee déggoo ci séddale leen ko ci seen ananu bopp te duñ ci ñaawoo ñu nangul leen ko ñoom ñu doxale ko noonu te seen village ñañ ñañ ñañ responsabilité ñoo leen koy demandé noonu moo tax mu mën a demee noonu kon lu mel noonu bu fekkente ne am na nit ñi gis ko dugal ko ci réseaux sociaux yi dàpp ne dañoo jël organisme boo xamante ni si dañ leen a bàyyi ceeb bi chef de village lu leen neex def déedéet demeewul noonu xañ na nag ñoo yor stock yi ci dëkk yi ñoo dox diggante askan wi ak commune bi te it ñooy dem ci nit ñi te ñoo yërif délégué de quartier yi te ab gox mënoo faa dem di jaar sàkk nit ki moo waral ñu ñu ko jaaralee seen loxo ba noppi amuñu it sañ-sañum nag xëy xëy rek a ñooy indi rapport ñu indi lañ ñu comparé lépp ñu méngoo moo tax fi ne am na fanaa yooyu waaye yooyu a bàyyi xel ndax du lu am solo lu ñu war a mën a bàyyi xel yaakaar naa it dégg guma ko fu jar def attention wàllu jër ndax yaakaar naa ne su ma juumlee ci moo bi nga xamante ne si moom lañ def ak commission bi gisaguma ci ku mën a contesté loolu wala ku ci génn ne faayit bi am na luy luñ mën a teg baaraam kon loolu nit ñi ñu bàyyi xel Touba ni mu toll ak li mu ci ay village téeméeri village ak nangam yéen nekk dëkk bi yenn yi di ay dëkki àll ay mundir daal am fi ñu ay ji doole am fi lépp am fi gisuñu lu dul ñaari quartier wala ñett yu ci am mal attendi te loolu ba ay nit ñoo xam ne foo xam foo gis ci am na defar am na yàq mbir mi dama bëgg ñu bañ koo bàyyi xel ci ñaar buñ jàpp ne mbirum Abdou Lahad Ka la jàpp ne mbirum maire Touba la buñ jàpp ne mbirum état la mbirum askan wi la askan wi nag képp koo xam ne jàpp nga ne ka nga tànn yaa a lii da nga cee war a dugal sa loxo xool nu mu rafet yegg ci askan wi te dalal seen xel wax leen luñ mën a jàpp moo gën nga leen déstabiliser ci loo xam ne mën naa indi jiixi jaaxa ci askan wi mën na leen a indil fitna wax ji kon lii nañ jàpp ne du mbirum état monsieur le maire ko ci sant ndax li koy sante mooy benn rek nun bu defoon lu dëkk sudut noonu noonu lañ ko koy waxee muy dégg te loolu nit ñi mën nañ seere waaye bu defee lu baax it noonu ko taxaw wax ko mu nit ñi dégg ndax du num bokk te nu ko jëlee rek noonu lañ koy àndee moom gis nañ ne lii ni mu ko jëlee contexte yu leer la luñ mën a teg baaraam la ndax ceeb biñ ko génnee ba léegi bàyyeewuñ ko ko noonu au contraire sax noonu accès biñ ci am moom amu ci loolu li bàyyi xel te yaakaar naa ne doonutun ay gone yi wala ñu dugal ci mbir mu leeru suñu bopp te it fa suñu yéenee taxaw ci nation bi di leen wax loo xamante ni si suñ bakkan lañ ko teg jombale nañ suñ bopp loolu